ci suufuk Sénégal gunaat gi yaakaar mën naa judd ci diggante baykat yi ak sàmmkat yi bésub fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre bi yamook atub 2023 ab jéego bu yees amal nañu ko ca pincum ndaw réew mi lii di code pastoral député yëpp àndandoo daal di koy voté lépp rek gën a rataxal diggante sàmmkat yi ak baykat yi. mais acteur élevage yi ñoo ko élaboré ñëpp la ñu indi ñu concerté wu xool lan moo seen problème ak lan la ñu bëgg ñu tënk ko si code bi indi ko si ministère bi ñun ñu man ko indi assemblée nationale validé ko par les députés euh, ñaaw nañ tey nag wan nañ ko wax nañ ko wan nañ ko député yi avantage code bi d' accord nañ ci et pour la première fois ñu voté à l'unanimité un projet de loi boo xam ne dafa ñëw fii nii maa ngi si remercier député yëpp aussi aussi di si am mbégte aussi sam wàllu bopp en tant que euh, ancien député boo xam ne fii laa nekkoon tey ma ñëw fii nii ma am unanimité député yëpp ñu votel ma opposition comme euh, mouvance présidentielle ba code bi jàll comme ni mu waree maa ngi leen sant waaw code bi boo leen xamee boo leen xoolee dafa am toujours jafe-jafe yu am diggante éleveurs yi ak euh, agriculteurs yi lu si gën a bëri am na ay aussi loo xam ne ni ay vol de bétail daf bëri jafe-jafe yu nekk si élevage bi léegi nag ñoom ñoo toog naan lii la ñu bëgg suñ ko defee ñun suñ jafe-jafe dana wàññeeku wala mu jeex loolu mooy code bi loolu nag la ñu indi tey pour régler définitivement problème yi am diggante éleveurs yi ak diggante éleveurs yi agriculteurs yi ak diggante éleveurs yi ak yeneen euh, facteurs yoo xam ne ñu ngi dugg si élevage bi te di ko bëgg a yàq moom moo tax code bi ñëw tey si pour effectivement aider les éleveurs mu ñu mën a prospérer wu mën a am seen dignité Euh, ci seen liggéey loolu moo tax ñu ñëw fii nii. waaw xam nga Ranch lii dafa nekk investissement bu am solo bu président Macky Sall def léegi mais dafa am jafe-jafe fonctionnement léegi ñu ne léegi comme noonu la nañ ko euh, changer tuuti def boo xam ne mooy moom boppam mooy établissement public à caractère industriel et commercial boo xam ne su Ranch bi amee loolu dina mën tax ñu mën a yor seen bopp mën a activité man foofu am loolu éleveurs yi ñoo ko bëgg te gis nañu avantage bi. projet de décret mu ngi si pour man ko man ci aboutir si loolu mooy li nga wax noonu sànq mais ñu ngi si liggéey aussi bu jotee danañ ñëwaat encore fii assemblée nationale woo neen ah lii la ñu proposé suñu sax d'accord après ñu mën ko def incha allah. waaw xam nga euh, loi suñ ko defee si pour appliquer te code bi léegi la commencé code bi presque euh, buñ ko commencé ba léegi mën na 11 ans maa ngi remercier ministère yu bari ministre yu bari yoo xam ne dañ ci liggéey ba fa mu yegg nii tey. donc suñ ko defee ñoom ñoo soxla aussi ñu appliquer ko directement donc du am jafe-jafe pour ñu appliquer code bi parce que ñëpp ko soxla pour en a cas éviter au Sénégal yenn ne duñ ko tudd donte nemmeeku nañu yi la jéego am na itam jafe-jafe yoo xamante ne bi ñu ngay des ba tey ñii di yëngu ci wàllu càmm gi di xaar ku leen subventionné jëm ci dunduk njur gi wante itam jot ci li ñuy wax crédit ak itam kaaraange ngir ñu mën a mucc ci càccum njur gi bokk na ci la ñuy xaar jamono ji loo xamante ne sonal leen lool bokk na ci transformation conservation ak itam distribution lu jëm ci meew mi wante itam ay bërëb barab ñu mën a càmmee bokk na itam ca la ñuy xaar ngir mën a mucc ci les conflits